sallallahu ala muhammad sallallahu ala nuru muhammad ndax ñu bari ñëw nañ ci seen bi jël suñuy vidéo ak secret yi ñu ciy joxe bind ciy déere di ko joxe am ñoo xam ne ni jël secret yi fan nekk di sa faj lépp ñu ngi ko amee ci Kun Fayakoun TV ak Karataini TV nga xam ne ñun bu xasee ba toog ci écran bi di wax. dafa am question yoo xam ne ne moom la ñuy tontu si message te buñ koy tontu duñ si nëbb dara dañuy ñëw yow ma nga xam ne yow yaa feebar la lay faj carrément lañuy teg si taabal yi nga xam ne ne danga koy defal sa bopp wala nga wut ku la ko defal nga xam ne duñ duñ soxla sax ñun naan la nàngam nàngam moom moo tax ba tey si boo xoolee li ñuy muy wàllu ngóora wàllu li koy faj ak li nga xam ne ne boo ko defee dootul la dalati ndax toujours ma koy wax baatu ni bii boo ko bindee si pom ba mu fees nga lekk ko une heure de temps la ngay dangay dangay dangay kii dangay doyal boo ko bindee si ndigg doo tële waaye surtout fii li ngay bind bu góor bu jigéen bu góolu ngaana nga wut sebetitu dugub ah, xooj ko boole ko saafara bi def si xorom di ko naan parkaas kaas billaahi wallaahi boo amee benn boobu kooku dana ne wax dama la wutiwaat dootu ko àttanati moom moo tax boroom ñett yi borom ñeent yi lan koy kii wàllu ngóora ndoxu si di hémorroïde alxuraan bi moom moo si gën a gaaw ndax alxuraan bi dafay lay tàggaleek moom nga xam ne dootul ñëwati moom moo tax ñun képp koo xam ne ne dañ la koy fajal dañ la siy dimbale won la yoon ba nga xam ne ne yow dootu la dalati ak ni ngay def kon nag ñu ngi leen di siyaare bu baax di leen baal xaq te di leen ko baalu di wax Karateyn TV ak Kun Fayakoun TV bëgg na ñëpp dem ci seen yooyu ngeen am